dem biir xeer bu bari bi dem ndax teen bu neex bi rab yi rek ñoom ñoo ci naan naaj bi lakkatuma taw bi barewul dem ngir bokk bool mënu fe am dem ngir dafa war a nekk góor doon góor góorloo que sufre o yaa ngi si kawam waaw maa ngi si kawam nag naka réew ma nag neex de ah waaw waaw waaw waaw mi ngi neex nag mi ngi neex sama xel a ngi foofu nag saay kañ nga ma yóbbu léegi rek soobi yàlla seratul jàpp si gars yi laaj sama copain nga su ma la wax muy dañ da ngay dem bu soobee suñu borom man maa la wax loolu incha allah sama xel a ngi fa de ah waaw da ngay dem sama xel a ngi fa waaw waaw macha allah quoi ndax bu mu mujj fii bàyyi ma ko macha allah mooy jaar point bi moo gën a gaaw ah. jaar yoonu point si nga dem biir Dakar. d'accord point bi moo gën a gaaw nag quoi Fass. d'accord loolu mën bi nga li nga fi jaar moom temps yi ngay da nga fàtte. jaar nga fi wasoon da nga ko fàtte. ah oui woo nga dëgg woo nga dëgg woo la. guddi mu guddi la ma gëxam tamit. ma xaw a gëlëm quoi. la dëgg la jaar nga wasoon. sama xel yi soog a ñëwaat. parce que xel bee ngi soog a ñëwaat. yaa ngi soog a yaa ngi soog a. wala gëj sa dëkk baaxul quoi. baaxul baaxul baaxul.

waaye yëpp gis jàmm. yéen ñaax na ah. yii yaay am na gan nag sa xew bi dama gën jàmm sa xew yëpp. waaw si xew la waaw. man de am naa gan. waaw yaa may. waaw. nan la def am naa gan waaye sama taw bu góor bi. nan la def ça va. kañ nga ñëw. léegi ñu ngi soog a jege ay lépp. ça va bien Ablaye naa def léegi nag moo ne ma naa ko jël si. dëgg la kay. waaw dama la bett tàggoo ma sax.

waaw maa ngi ñëw doon yaay. doo xaar na ko son. waaw dem suba xam naa suba mu dem. suba incha allah. waaw waaw xam naa ne suba suba. non yéen a ba pare. waaw suba rek. waaw suba incha allah. waaye ma dinaa la woo. incha allah suba dinaa ko woo ñaan. jërëjëf waay. Bon, jamais, não não não vie, jamais.

ba nga ne jëpp xam nga ne farata kër gi moom dëgg la foo jëm nii maa ngi caaro yi nii sama benn kër xay bi na Pape Soura Mbaye moom laa dem seeti nii kon du ma la mën a yóbbaale kër gi dëgg la ni xam nga mooy nag waaw seet si ma kër ga dama laa soxla suba dinaa fa ñëw wala da ngaa fàtte bokk ndaye baay parce que moo leen nijaay jumte rek suba incha dinaa fa ma xaar loo ma la gis nijaay dinaa fa ñëw suba incha xaar ma yow dëgg la génn exil exil exil dama doon aji génn bismillah non ñëwel toog yi maa yaa ngi am jàmm sant yàlla bu baax alhamdulilah ça va bien sant bu wér wér naa dinaa ñëw dinaa ñëw de maa ngi nuyu ma sa yaay bu baax a baax ñu yaa ngi nuyu bu baax a baax ñu ngi nuyu bu baax alhamdulilah naa def rek boo gisee ma woolu la mm-hmm. xam nga ne sa tukki bi da yàgg lool bon effectivement loolu dëgg la yàgg nga bitim réew trop mm-hmm, mm-hmm. nga dem ñëwuloo Euh, te li fi xew sa ginnaaw bari na mm-hmm. te nag euh, xam nga maag sa yaay li ñu bokk. ñoo ah, bokk ndey ah, te boo fàttali ko xam ne bu baax a baax man nga am soxna. ah oui bien ma gënoon yitteel moom si la bokk wax. bokk na ci nag li tax ma woo la. Mm-hmm, mm-hmm. daal nga wax. Euh, ma bëggoon nag. bu fekkee waxtaan nga ak sa yaay. nga ñëw rek ma may la ci kan fatu ñe fatu moomu sax comme jotoon ngeen xamante yéen ñaar ah Fatou Fatou oui tu connais Fatou tu connais Fatou Fatou xam naa fatu bu baax di jaay fatu wa waaw yow la te xess ni ci ko ne fatu très bien di jaay ma sha allah dina mën a ki wat ak yow oui dëgg la deug la deug la di jaay yéen bi rafet na trop euh di jaay doguma la sax bon man sax bëgguma mu ngay wax ma ci jéem ta genn ya, baat hmm. euh bon di jaay bon eh, ay sey dom di jaay ak ah, domu bajjan man di jaay

tàkkoo la tudd. ma bëgg ko lool ma bëgg ma. te kooku duma xamante nooy yàgg. tàkkoo fu ngeen xamante. tàkkoo fi la ñuy xamante au Sénégal sama yoon bële passé laa xamante tàkkoo. ba léegi mu jàppatoo bàyyi. sénégalais la ni maam. Mhm. bon bëgg naa sax su koy ñaani. bëgg naa lay yabal yónni la nga dem ñaanal ma. déglu ma dinaa la xamal ñaar ba ñett bariwul. loo ci góobee na ko gar. non bu waxee noonu. ma rek. loo na ko gar man nag nijaay la. boo ma santee dem mënumaa ñàkk a dem. Mhm. ndax maa sa ndey li ñu bokk. Mhm. dégg nga wax dëgg na waaye lu la ci fekk ëllëg it na nga xam ne yaa ko teg sa bopp. bu ma ñaanal loolu. say responsabilité na nga ko jël dégg wax ji bu baax. Mhm. lu ci mënti amit. na nga nangu ne yaa fa yóndee woon te na nga ko yor nag kàntaam mbokk gi nag na la leer ne du tàkkoo koy tas du faatoo koy tas. dégg nga wax ji bu baax. Euh, léegi nag comme yow amoo kilifa. non si bu waxee noonu. wuyu mën ngaa dem boo demee ñoom Masana nga bañ koo gisee na neen. bu fekkee boo demee ñoom Masana nga nga jéggal ma bu baax di jaay. léegi xaalis ma jox la ma am luñ fi bàyyi bu ma ñëwee ba léegi jox ma xaamu am bàyyi fi dara di jaay léegi na nga jàpp si lii bariwul nag maa ngi koy xet toxob. teel li maa ngi koy xet nag bu baax nag maa ngi koy xet. Ah. waaw waaw di jaay kon. waaw ngi ñëw dem lu mën a xew daal yàlla la yàlla may jàmm. amiin di jaay amiin nuyu ma sa yaay bu baax. amiin à la prochaine. nuyul ma sa yaay bu baax a baax nee ko jamono yi naa ko seet si bu ma may jot. merci d'accord incha allah delloo ma bunt bi. ñoo ah. ngi am na solo tey kay mën naa foo mu dem ma wax dëgg yàlla jaratut may dem xanaa far toog alhamdulilah rabbil alamin salaamaaleykum. waaleykum salaam entrez. eh man eh, maa doon woon ni. ah bon waaw. waaw man de yaay damaa xëy na sama kër nijaay. sa kër nijaay. waaw. yow ku la ko wax ku la ko wax. ah laajte laajte ba xam fa dama jox ay tetal. ak ah, yow ni mu fi gëjee. ah naa la laajte mais dama doon nelaw. dëgg la dëgg la te damaa xëy dem. damaa julli ba pare wér ba pare tëddaat. waaw ah, d' accord léegi nag mu déggee nii a xaar ma sedd pour nga ñëw ñu ndékki. d' accord moo tax bëgguma la woon tranger si nelaw bi. dëgg la dëgg la xam nga suñuy nelaw di sieste moom nit ki moom suñu nelaw war a ko tranger. dëgg la dëgg sa nijaay mi ngi foofu mi si jàmm mi si jàmm mi si jàmm mi si jàmm mi lay nuyu bu baax sax waa réero non réero ma parfaitement parfaitement am na foo xam ne xaw naa xam ne foofu daal ah. son naa fa dem nag yoon bee passé dëgg la dëgg la naa def nag waa waxtaan ngeen bu baax waaw waxtaan bu baax ah. waaw ma doon ah, wax jox ma ko dara yow da ngaa tàggu woo ma jox naa xaalis di yaa ko ko daa

ay doom bajantoom nijaay day tas mbokk bi te loolu bëgguma ko am na ku ma bëggante waxoon naa ko la ko waaw waaw yu tudd takko tàkko waaw waaw waaw expliqué woon naa ko sama nijaay dama koy dégg rek waaw ne sax dina fi ñew mu ñew encore mu dem ñaanale ma takko mhm. tàkko ku baax la bon gën na gën bu rafet ma tukki ba légui mu sam ko sàmm ko kóorale mhm. bi ba légui muy dox ñu wotante ma nek en Europe deug ma ñibi si kon yor la ma dem diko ñaan

dinaa ko indi non naa ko indi ii di ko gis. sa nijaay ba meru. ii meru kontaan la dafa ah. kontaan. ii dafa kontaan mm, mm, mm. ah non mais yow expliqué naa ko dina xaw a comprendre. Ah, dina xaw a comprendre. gënalu ma nag gënalu ma yi moom ku ñu bëgg rek dinañ ko mu nekk mbokk dinaa seet lu bari mu tas mbokk mi te yow dëkkoo fi effectivement loolu lay bañ ñu lay weññil ay jabar loolu lay bañ loolu lay bañ waaye bàyyi ma choisir ma choisir te xam naa lu ma choisir yow bëgg nga man lu la lu la neex rek neex na ma lu la neex rek neex na ma jàmm yaay booy yàlla sama yaay quoi waaw yaay sama xarit yow rek laa xam ah doo ndékki léegi laa ah, ndékki am naa ko kon su boisson bi naa na waaw mais grande rek toujours su ma ñëwee tu vois ah yow yaay sama xam nga doo lekk ni xoolal ni nga jeexee

Ah c'est foo affaire kër la. non non pas américain le plan de. nga non, pas indi ko ah merci de oui ñoo ngi conteneur bi. la cinq là, a le conteneur de port. de. kay c'est la ko bëgg a defaroon. fay naa douane bi fay naa lépp a fay. yeneen bagage ba la bëgg ko wax. a de may sama eh ndey moo gaaw loolu yëpp indi naa ko ko <laughs> maman mi si continuer ma dugal. yàgg nga maa sagal. yal na la yàlla sagal. amiin amiin waaw. asalaamaaleykum. incha allah waaw. Adja Soda. waaw ñoo la nam. noo def ça va bien. Ah, na ma nan la. naka yi tey. sama doom la. Ah, moo jógee Amérique. bi nu mu tudd sax Gawso. Gawso Gawso Mouha Gawso gi nii doomu aadama lu yàgg nga nii nii gisante wuñ dafa yàgg tugal. mais ana waa Amérique. ana waa New York. ana waa Balari. ay Gawso gi ay Adja bilaay ni jomb la nag. dëgg la Adja Soda da ngaa nekk ci bi. dëgg merul. ndax da ngaa ci sa kër baay gi Adja Sow da dafee liggéey ngay def lu baax di ko jafe maa la wax loolu te nag liggéeyu nday añub doom yow ku la gis xam ne ne woo tugal di fa def loo fa war def mbaa ngay romb ci mbedd yi dégg nga maam di turbale tubaab yi dafa ko doom ju sagal sa ndey nga dangaa def lu baax yow munoo ñàkk bañ a am li Adja Sow da waa ana ndey sama xarit bi ma ko Adja Marème mooy sa yaay. Adja Marème mooy sa yaay. Adja Marème xoolal sa yaay liggéey lii. xoolal yow mënoo bañ a ñàkk a am lii ndax xoolal yow ñu mën a rëy di fay ndeyam waaye xoolal affaire bi ndey ci la nga sàkkal sa rab jéem sa bopp sa yaay bande dina rer bande sam ñam mo mam na matal bi tanke ba ko ni mo kan le ya xam ci jamono ya fi le pa ne yegal jamono defar jamono mom la la xamé defu ya yewen bare sam ga ma ni sam ga ni ya yewen ne ma ni ni baga wax ci yow lu looloo am. waa dama ne Adja lu jomb la. ndax Adja Soda yow da ngaa baax. te bëgg sama yaay lool nag. maa la wax loolu. sa yaay démb la yow nii nga mën a mel. mooy sama nday jaay xarit ba. Ah, maa la wax loolu. waaye bàyyi bàyyi royukaay ba. Oh. waaye yow sa ndey ku la xam ne xooloo ko. mu fi seetaan. ma ko xoolal ma ne yaay booy yal na nga laal kaaba ga yaay booy yal na nga laal kaaba ga yaay booy yal na nga laal yaay booy yal na yaay jëlal sa kaala waa lay xaar kuñ julli

yow yaa nga bëgg a ma may la xam ba rek nga bëgg ma may la man da nga ne même la may may premier cadeau 8 millions pas chèque dama koy compté 1 2 3 ba bii ndax man dama la bëgg bëgg boo xamante ne nii ëpp na dayoo léegi na dayoo sax laa mën a wax ndax ànd na fi ànd bu ma jógee dem ànd Europe teewul ba yaangi sam ko sàmm kóllëre sama diggante ak yow ma si Sénégal nga gën ma bëgg waro ma benn yoon wala tax ma la bëgg nak wa mi loolu it ya ko caa yow yaa caa merci

am luñ ñu defal moom tamit. dëgg la war nañ ci xool darab yi ak affaire yooyu daal. waaw macha allah moom am na ay drap ay rideau. ay mbàjj. waaw mais jàmm xam nga dafa xanaa ah. soxna. waaw fi moom lépp jàmm. naa ne loolu du mat loo xam ne. waaw bi pour dako. maanaam lépp loo bëgg a def moo xam ne. macha allah ak ah, surtout taxab bi tamit nee na ma toxu. waaw taxab bi nee na ma. waaw moom lépp jàmm bu baax. waaye drapeau la quoi. mbàjj bi aussi tamit.

ay France c'est bon ah. waaw léegi li muy wax noonu après da koy bind nga taxi ko daal. léegi xaar après ma jox la carte d'identité. d'accord ok su ko defee su ñu ñëwee fii. Mhm. incha allah dina ñu ñëw fii nga jàllee ay. masin waaw asalam la rek maa fi asalam. voilà naa la boole sama ay ay ay xare yu nekk ànd ko. d'accord.

fekk ma sama xew bu rëy bi laa ko war a annoncé nag ah moo faamu tax waaw Aliou Assou waaw xale bu jigéen bi namm naa la yow dañ may takk la 27 léegi xam nga dañ may la 27. waaw la 27 bii waaw la 27 bii bi waaw góosu ma may takk yow waxoon na ko waa kër yëpp nag ku ñuy doon koy takk góosu ma koy takk dégg nga waxoon na ko sa yaay nga waxoon na ko ñëpp daal nga ko waa tëgg kat sabar yëpp nag nga ñëpp teew waaw gis nga bu ma meree lu ma la ko teelul wax yëf nga xew bu rëy nag xam nga man namu ma dara te góosu tamit namu dara waaw dañoo fas yéene def ba mu tëb nag déggoo ma Amin gis nga de amiin waay Wah kii amoo dëkk ak sa ko rek na teew de ay million lañ ma jox première maye kase lu mu laajte ma jox ko ko merci ok merci waaw allo Gawsu na nga def waay waaw man la sa nijaay waaw xam nga lu ma bëgg maa ngi lay dégg bu baax a baax xam nga lu ma bëgg nga sekk si ma kër ndax la ma la doon wax jublu naa ci te bëgg naa ñëw nga nga fekk si ma bu ko defee la ma doon wax nga xool ñoom ñaar yaa dégg bu baax wax ji daal jeex na bu subaa na nga ma fekk fii maa ngi lay xaar dégg naa la astu astu naam nijaay yow astu ñaata yoon laa la woo woo naa la ñaari yoon loo doon def maa ngi ñu xoolal yow da mën a tam xam lu loolu waay anu xale yi xale yaa ñoom wax ji ñoom la a concerné wool ma leen di papa même ma lagi ci yàlla xiiroon sax ci sama tànk yi kii dafa yore di Fatu? da ngaa mer naa mer ma papa mer ma kii mooy sama chat, moo tax foog may naxante moom du noonu astu dañuy jublu ci waxtaan bi xam nga lu bëgg sama jarbaat ba nekkoon bitim réew ma yàggalee na waxi waxam mu tudd gawsu eh, umpale woon a ñibbisi barki dem ba sax dajé nañu fi ma waxon ko na ma seet si boo am lu jotton wax man ak mom lolu xëy duma ci egg waxi kilifa la euh, dama lay yëgal rek ndax sa kilifa la ko suma la waxé defé na ne ko waxé di ko ni defé dama ko bëggal ci xalé yi kenn ndax seen jabar yoon yalla bu du euh, kat yi di faatuma le am déet. Ah, papa yaa gën a ko ne kooku moom mën na. yow doo rek yow da ngaa bëgg yow. tëjee sa lamine yow. li ma leen di wax yéen ñaar daal mooy suba tàmm ngeen dox bu dul jeex foo nekkoon maa ngi kër nday mari ca salon ba foo nekkoon maa ngi seeti yoon roqee lu ne ngeen wax ma ko suba bu seen tànk génn buntu kër gi dégg te na ko xaar nag te dalal ko ndax gan gu gan gu ma teg euh, place laa laa fi am dégg ngeen wax ji bu baax kenn nag da ngeen toll ci sëy ah nijaay loolu kay ndax boo woowee sa jarbaat pour mu ñëw tànn sa waa kër yi. loolu dama ci sawar kontaan ci bu baax a baax. xam nga lu ma bëgg yow daal. waaw. wéyal ci samay waaw. da nga fexe nu mu jëlee ci kër boo ma fanaan ca Basang. l'histoire ne tiendra sans conseil. ne ñor pour yee fitna pour xam. i race français yi na la dëgg rek ñor bu yee picc na bul xam waaw yàgg na waaw ma yàgg ànd xob nag. waaw ma yàgg waaye. ànd xob dëgg la kay. saa yoo xam ne ci trois degré. c'est trop. waaw neige bu tooxee neige. koo fat seet bi. waaw fas seet topp. fii de tàngaay bi ñuy bëgg a waaye nag. waaw xam nga xam nga Afrique ak ak Europe bokkul. bokkul ba am différence bi. waaw yàgg la am. dëgg la fii daal moom tey. ça va bien. ça va bien. kii mooy kati. sama en kati sama. kii mooy caat. caat moom. mooy. fu mu mooy kat yi. ah mooy kat yi. fu mu nekk mu ngi. d'accord xam nga yooyu lay def. yow mooy Fatou. ah Fatou. Fatou ça va. ça va bien. gis nga ko moom daa mu. Fatou may ko ndox mu naan. mun naa yoon bi xam na koo sonal. say jabar daa leen ji. boo ko nangoo say jabar lañ. boo ko bañee jabar lañ. fan yi sax mu ngi jàng fii ci arabu Oustaz Camara tey yéen naa ko lool lool la léegi daal li ma bëgg mooy nga jox ma sa réponse. amiin amiin. waaw. moo tax man dama ne si ginnaaw waroon naa sa kër nga proposé lu mel ba tax na dama direct. gis ay cas yu bëri mhm. du mu ci dugg du mu dugg si say bàjjam si say. doomu nijaay amatul ci parce que Sénégal mbokk yu yow la nga ma waxoon bàyyi ci dara waaw si yow nga wax ak man ma foog ne xëy na yi gone nga ma wax ak li ngay doog a ñëw ndekete yow danga nga sérieux ci li nga waxoon wuyu ma amul nijaay man sa kilifa laa. même ni may wax nga naan ma tas mbokk ak euh, tàkk kan mooy tàkk. waxoon nga ma waxi lan mooy tàkk kan mooy tàkk. yow say doomu nijaay nii say doomu bàjjen la xus dëkk bi. Ah, yow da ngaa ñàkk xam sa bopp. waxee noonu oh. di jaay bu waxee non wàññi. teggi ma sa loxo bi ki tàngal nga sama xol bi waay. ki dafa xamadi. wax ci njëkk wax ci teraanga. yow gis nga daw ñu say doomu di jaay. waaw loolu dëgg la boo leen jëlee war nga leen a jël boo leen jëlul war nga leen a jël. loolu dëgg la boo yoon yàlla ak xam waaw bu dee dëgg lu la ko tere de lu nekk expliqué naa la ko pour man yëfi gone nga may No, ndekete yow daal da nga jàppee man jógal déglu ma ca kaw kii eh kii dafa di baadool la nga naan ma jikkoy xale wuy ma jógal jógal jógal jógal ca kaw jógal ah jógal ah, bàyyi sa ñàkk jom teel sa xaalis man dee su ma jëndee xaalis teel sa xaalis bi nga naan ma jàppal ci li man doo ñëw toroxal ma sama kanamu njaboot di ma jéem a jëndee dia man gor pire laa laa la wax toppal sama baaraam bi ma nga génn ca biti laa la yëgal baa doon la bu boog bon bi nga doon nga naan ma d'accord di tubaab tubaab la waaye li dafa tàngal sama xol waay leen jóg leen dem ci biir jóg leen jóg demal àggali sa fóot bay jógal jóg dem ca biir baa doon la la waay ki jaru ta aka wuteeg ndayam ndayam waaye waaye Mbaye Ndiaye waaw. waaw benn sànq bu ma joxoon nii. Ah, waaw ñu xaalis bi. d' accord bon garaaw si yow daal ñëw na si profil médaille bi. xam nga ni médaille bi ñëw na ba pare. dëgg la presque euh, le 27 bi di ñëw. dëgg la dëgg la dama bëggoon organisation bi yëpp. dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la chapeau 700000. ba zéro mi yëpp. chaisière bâche yëpp tout. sama dégg lépp daal sa loxo laa koy teg. waaw ah, na sa xol seen ñëpp yëg na sa xol seen ñoom si ñoom si ñëpp naa la. voilà bëgguma kenn mel. waaw yëpp na sa xol seen. sama dégg lépp daal sa loxo laa koy teg. bëgguma kenn mer na xol seen ñoom seex ñoom ñoom ñëpp ñoom siir ñëpp naa ñëpp yëg bul bàyyi kenn ay dañ ciy jàpp ay dañ ciy jàpp taxawaay nag moom wax après léegi mooy fini choc bi jox la nga dem ci xaalis bi euh, maa ngi dama dama ama toogaay waaw ñaan naa la si ndax yow ngay ama créneau pastel na pastel Eh, yaay. waaw nga si tey dafa dem. xew ci gannaaw def buntu baraata bi. takk Adams bi tey la. ah oui coono dama ko fàtte woon sama fàtte woon naa ko ah tey la xew bi. kon looy xaar léegi da nga sew da nga say sa nii. yow laay xaar nga def man dootu li ma dem. ah d'accord daaw tam. Ah. waaw sama yaay yow bu nga xew de. waaw ah, gis nga ko gis nga ñaar xew nañu ñaar ñaaw bu ñaaw bu mu jox. jox ma cinquante mille. non baaw ñu ko quarante quarante moo ne si poche. waaw baaw ñu ko quarante ba nga dem ba ñëw. Ah, waaw baax na baax na baax na mën naa koy jël taxi dem. waaw doo ko fas yéene. ànd si biir léeg-léeg defal nga ñaari ànd. ànd si biir waaw. waaw parce que kanam waaw parce que kanam ma jóg dem biir. daa mi nay dofi yow ku ma lii rek entrez. entrez kooka la. Eh, d'accord. waaw yow yéen bett ngeen ñu la nii yéen. d'accord. si président indi gan laa indi. bett ngeen ma. gan laa indi. ça naa def maa la la yow. ça va. yaa si jàmm. ça va bien. laay. li may tàkko mi ngay dégg. Ah, ah, na nga def. ay fii. lay ma lay dégg rek te mënuma laa gis. waa gis nga li ngay dégg la quoi ça va. yaa ngi si jàmm. ça va bien. waaw tey sa waay. non tey sa waay. yow la sa waay dama sonal naa ma tàkko tàkko rek. <laughs> bàyyi tooñ. Ah, yaa ko téye yaa ko téye. sa waay téyoo gu ma ko. yaa ko ah. mu ko téye dootoo ko gis aussi. yow kay sa waay lii moo tax kenn mënul laa gis. Ah, macha allah. alors ah. taxawul. ça va na nga pare. waa gis nga. dama def loolu waaye. peut-être bi lay préparé nii. gis nga moom lay préparé. ça va yow lay. na ma naa la yaa ngi si jàmm. yaa ma seet si nii bett ma nii. waaw woowale ma sax.

ak li ma amul war ngaa xam ne yaa ko moom li ma man ak li ma mënul lépp yaay boroom yaa yërmande yërmande waaw Pape Soura ça va noo def daa si jàmm waaw bon xam naa bi léegi deux semaines quoi waaw waaw may takk jabar la vingt sept bi waaw la vingt sept waaw xam nga ko gars yëpp nag waaw ñëpp ñëpp na ko ñëpp a dégg na dégg waaw waaw la 27 bii di ñëw lay tombé incha allah d' accord amul benn d' accord d' accord la tudd d' accord waaw d' accord merci. waaw ah, léegi dama woon nañu parce que xaaral France sama yaay Adja moom France aw. eh yaa booy ça va bien waaw sant yàlla bon boo ñëwee am na deux semaines quoi waaw maa ngi bu baax waaw bon après xam naa tàngaay bi ma xaw a sonal as ma rek changement climat bi foofu foofu ma fi am na boppam quoi waaw. waaw waaw damay capp cappal la la la vingt sept bii waaw loolu ma gën a indi sax wala jabar ji moo tax ma gën a wu sax pour waaw waaw waaw nga xam naa moom soo ko déggee en fait moo ñëpp ñi nga ko dégg waaw. waaw wax ko ñëpp waaw incha allah lu xam naa après mariage bi naa fi def bon deux mois deux mois waa nit après dellu quoi dama bëgg a yóbbaale soxna si dama bëgg a ànd ak soxna si yóbbaale ko quoi. bon États-Unis mois bee passé laa la jógee mois bee passé états yi Suisse Angleterre sama jigéen ba si nekk la attan suñu quoi. tooguma benn dëkk damay wëndeelu si dëkk yi rek dafa fii fële Espagne Italie États-Unis damay wëndeelu quoi waaw waxuñu ma ko ñëpp xam naa doo ko déggee moom ñëpp ko siy jot d' accord.

sa li may jox laa lekk ah non man daal kenn li may jox laa lekk. dama la war a jox. waaw waaw man yaa am sens kasi bi xoolal. dan moo ko ñaan ba sonn may kasi bi du ma ko jox kenn ku ne sama copain sama rax laa koy jox am maa la ko may. maa la ko may si xol bi sedd ku vraiment kontaan na ci naa. kasi bul tuf la portable la. day si portable en même temps mu ngi koy

alal soo ko amee da ngay bokk doomu aadama yi te ah xam ne yàlla loxo ko jox yoon la nga bokk doomu aadama yi daa may dëgg am problème mu diis diis diis dama mën ko dama koy faj man bëgg ma nit kuy souffrir wala nit kuy daal lañ lay ñaanal day ñaan yàlla mu lafal la cat amin amin amin ndaxte fi nga féete nit ñi la amin mm, du ma ne fii mais sax dama naan àdduna pour généraliser ñëpp xam ne te gënoon na fi métti. waaw waaw waaw non kii la ñu fekkoon. voilà yow umpule woon xam nga fu ma jaar fu ma jaar métti na. lu ne def naa ko lu ne dugg naa ci ba yàlla tey ñëw mais damay tukki naajement damay dem fépp laay am si Europe fépp laay dem daf may yomb mais li ma jël car rapide dem Grand Dakar wala ma dem fenn daf may yomb. macha allah mais loolu yëpp da koy sant yàlla man ëllëg est-ce que xam naa fan laay mujj man xaw ma ko. xaw ma fu may mujjee alal ji ma yónni est-ce ma jig yàlla nekk xam. non yàlla moo ne alal su ma la ko joxee dañ si def lu baax dimbali si néew yu doole yi man loolu lay ñaan yàlla ba keroog may sangoo suuf alal ji ma yóbbu si dimbali néew yu doole ko pour ko ñoom. am na ñu fi amoon alal yu bari jëriñoo ñu ko am na ñu fi am alal yu bari alal ji ne mel ngelaw bu naaw si si bi. te man sama alal dama ma lew dama ko liggéey dama ko liggéey baana baana naa lu ne def naa ko wala kon nag nii naan ñaan bu nangu sonal borom moo ma dal damay dolli sant yàlla bu baax a baax a baax a baax a baax problème bu waaye am te ma mën ko naa ko faj muy yow di keneen ak keneen ak keneen te bugguma ma jox la ba pare nga wóor naa ni diwoo ma jox li diwoo ma fajal li non loolu bugguma man loolu nga dem taxaw ci bi def wala mais loolu bugguma ko mayee gisal man bugguma mayee gisal ba dama lay may si sutura ak yàlla loolu la bëgg waaye ne fii di sàmm mbayaat yooyu non non wala ma dem di maye si àll ba bàyyi sama wàgg loolu du ma ko def. ah boo toll ci booy Fatou. ba doomu nijaay. ah Fatou. gannaaw nag gannaaw nag non non nañu waxante dëgg parce mu nekk nii nag moom jot na parce que ni nga mel nii macha allah yàlla may na la ko et puis xam nga. yow xam nga ne derrière chaque grand. waaw loolu dëgg la grande dame dëgg la dëgg la dëgg la Fatou moom ngay wax sama ndijaay bëgg démoo njaay rek woolu na ma dama ko wax boo ma téléphone damay expliqué ba naan ko waaw naan ko waaw naan ko waaw c'est que petit dama bëgg nga xam man sëyu mbokk ay doom bage na doomu nijaay waxuma si dara oui mais nag mais nag man xam nga xamee ma ko nii nga ko la mais grand am na loo fàtte parce que démb ba may woo vraiment fekk na maa ngi la bëgg. may ma may ma may ma may ma fàtte ma ko de tukki bi ngay wax loolu dëgg la ma rek waaye jëlee yàlla bu yàgg tukki bi nga may wax. parce que dafa yàgg boobu ba léegi ah, déglu ma nga wax d'accord dama la bëgg a xamal affaire tukki bi lépp pare nga lépp pare dama la bëggoon bett surprise ñoo ne la petit nga ne naa may la solul dafa see bagage nga ñëw dem aéroport lii laa la ko bëggoon ah, bettee. waaw boo ma ko defee damay xam man ay. allah yooyu dëggoo ma ne sama lépp surprise la man sama lépp surprise lay amee. salaamaaleykum. maa leen Moussa gis nga. waaye doomu leen nangu naa la de. ça va. yaa ngi noof. yow gis naa la gis de. si jàmm kay. si loo ne. nangu naa la. waaw doomu ndey mbaa yaa ngi pare xew bi. billaay doomu ndey maa ngi koy pare. man de li ñu doon indi ba xam. bu yeboon na ko pare bu baax. gis nga maa ngi gis na ma solo. te nga xam ne lu ko ko jàmm la kay dëkk bi tamit tamit man damay pare sama mariage rek di pare sama xew rek. man de dama jot a dégg dégg nag laa ci am xaw ma nag. waa jàmm ñu ne dañ koy may doomu nijaayam. waa ah! bu yeboon na nga ci dem ay ñaan. waa ñi soxoroon yow nga foog ñi bon i ñaan du question bon de. lii mooy Sénégal ñi ñoo soxor te bon i ñaan nag. maa ngi lay wax nga yaakaar ne ay kaf la te du ay kaf de. bu yeboon na nga jóg léegi léegi sol sa daal dem monument ba dégg naa am na benn sëriñ bu fa ne nga dem uti ji foofu ay ñaan. sëriñu Dakar yi léegi yow wóoru na sëriñu Dakar sa xam-xam man ñaan bu bañ a wóor la vingt-sept la ñu war a mari waaye léegi le vingt-sept da nga wax ne dara xew bu doon man la de loolu laay dem defi yi te xam ne lu ko jar a ko man sama xaritu démb nga yow ba ma waxee dara ma ci teg ba baax na daal. Sénégal moo bëri nit yi soxor. maa ngi lay wax nga yaakaar ne ay kaf la te du ay kaf. gëw sa teraanga bi mën nar a defal lañ nar a yàq te lu mënuñ si dara gis nga ñaanlu bi nga wax naa fa dem. ba xew bi dafa nar a am. waaw baax na daal. ñii famille bii gëmuñu yàlla bu ñu gëmoon yàlla yéen duñ ko def

bisimilah bisimilah njaboot lépp jàmm kër. arikal maanaam. dina mhm. xam nga léegi Sénégal bi. Mhm. boo njëkkul jug rek ñu njëkk laa jug. moom la moom naan bu fekkee da boo bëree wul ñu bëree daanu sa kaw kon nag xoddi ko ca ba nga ba nga ndaxte boo lakkleegul ah ca ngay fagaru waaye jekki ba doo ko fagaru lan ngay fàggu. Ah, motax nak fiñ tolu ni yow mom lolou nga wax ni dana ci góorgóorlu def ci lima ci man ta xamna amna ci yaakaar suma tagok yow do ko reccu man nak mom dama ko yor rek lo xani yalla mako def ci man biko yalla defé ci man mom fa seen askan wi rek li moy sama sama sama xalat ci ci dekk inshallah allah ñaata la ñal li ñaata ñaata ki la ñaata bant la juróom benn bant xaw ñett fi doon dox tasee ko ñett ñett toggal leen benn ñett dox tasee ko ñett ñett toggal benn ñett tànn ci benn bant téye ko ni ci benn kër sampal ci benn gola gi la tala nara njol mi njolati fusti kamala njogul labaj sakkata bakkata kataba eh, kap kap bismillah kap kap rahman kap kap rahim kap kap kap kap sanna baraka danna baraka malikin jintirin jaakirin gaynde fek ci jangla jaan yangul jine ci jappal ma juroom ñaari fi di feeg fek neewuma la bul ko bàyyi say mbir jale na say mbir jale na su ma la jale na la ci def nag yaay góorgóorlu fas yéene koo fas yéene koo jariñoo jaral na xaaral ba tey lii rug-rug bii fexeel ba yeew ko ci loo xam ne boroomi donk la boroomi donk ci nga koy takk bàyyee ko moom su toogut li nga bëgg incha allah dana ko am danga ko am ci boroomi donk nga koy takk waaw maanaam bëccëgu xam nga ban bëccëg nga ko ci takk bëccëgu alxamis nga ko ci takk bàyyee ko moom sànnee ko nag boo koy sànnee na nga taxaw ci côté bawol bi boo ko sànnee day wër jëm gànnaar jëm bëj gànnaar bi ba yàgg mu doog wëlbatiku jëm penk léppay baax doo ko réccu nii nga koy ruge ca ca baat ba lonk ko ca takk ko teel teel nga mooy mu kiire ah lii nag moom morsa bu weex bi nga lu weex lii nii mu weexee amul dara lu ci lu koy taasal saa boo demee ca kër ga da ngay tudd turam juróom-ñaari yoon laxas ko di ko ngeganaayoo dégg nga ko tuddal juróom-ñaari yoon ngay tudd turam tafli ko ci nii laxas ko lem ko ba mu jeeg nga nga ko ci sa nga teg ci sa bopp la def ko am ngeganaay bii nag moom fasum ndigg ko koy def da ngay wut loo ko mottalee takk ko ci sa ndigg boo xamee ni mi ngi lay seet wala yaa ngi dem ci moom rek nga kii nga takk ko ci sa doo ko rëcc kii nag moom yàqu përëxu rek nga koy boole saañ ko ca biir xam nga yàqu përëxu ndaa xam ne yaa ko moom li ma man ak li ma munul lépp yaay boroom daañ yërmande yërmande yërmande yërmande yërmande Youssou yërmande yërmande yërmande yërmande yërmande may am di la jox yow su doyul ma dolli may xam di la wax yow di ñaan weesu fii man li ma am ak li ma amul war nga xam ne yaa ko moom li ma man ak li ma mënul lépp yaay boroom yaa yërmande yërmande yërmande yërmande yërmande yërmande perfect.

waaw jaaxle naa non la jàppale moom moo nekk nii moo nekk nii waaw dara waaw waaw waaw lay liggéey nii ah man jaaxal na ma de jaaxal na ma de waaw lay liggéey nii yow dama ko gëj a gis nag bay kay bay ci la ñëw rek mel nii non la bi la moom la ay mais bay ci mu jënd café bay ba ci laaj ma jënd café quoi mais laaj ma jënd café bay jënd café ah xaar ma jënd la café c'est café quoi maintenant quoi waaw ordinateur bi lu muy ëpp nii lu mu doon yow lii war a ëpp nit muy ëpp nit kii Mor Ndiaye balaa ma fekk si marché bu tali bu bees ba xëy woo Mor Ndiaye faale mu dugg si si maire boobu di jaay réeru garab ah Mor Ndiaye war nañu dem Italie ma xëy woo mu bañ balaa bi dem Italie Angleterre jugee Angleterre dem Suisse jugee Suisse dem France jugee France dem Paris non non loolu mënu ma ko comprendre quoi ah tubaab yoo xamante ni noo ba nekk nii tubaab bu nekk moo wóor kër bu nem la dugg fa joxe loxo tubaab yëpp laa nii tubaab yëpp ma nuyu la amul ku ma bañ. waaw ma dem fi am fi dëggoon tëdd ma ñaanal. ñaanal naa dëggoon. yaakaar naa ko AS Koussi. jàngal ko man nappi foofu yëpp ma jàngal ko am ah, wax yow observation sax nootu koor jàngal naa ko. nootu koor jàngal naa ko dëggoon la loolu du neen quoi. yéen ñi yéen eh, waaw quoi xam nga. mais moo gën a naay sax moo gën a rafet xam nga day gën a diiba day gën a suqali suñu koom-koom réew. oui moom am na am solo saa yi xam nga lii moom am na ñoo am xam nga yow meloo woon nii xam nga amoon xaalis si liggéey bu baax sa liggéey bi dox bu baax jékki-jékki rek ñu dal xam nga natt loo quoi mooy comprendre rek xam nga par man dinaa si jàpp dinaa si jàppale def si lu ma mën xam nga li ma la ba lii ba lii génn jàppale ma rek man lu ma si mën naa wax si def si jàppale naa la waaw waaw waaw

waaw waaw boo fekkee ne si taatu oto bi nga xam man ndox la ko dugg ngay table tabale ndox ba ko dugg yow day bu la financé de xam nga leen dafa seen orange yàlla waxa xam nga traverse ngeen jàngee xam nga keneen ngeen jàngee day mel ni sa borom néewul yàlla bu la fi jigéen ngeen xam waaw ba ngeen tee bi rek ngeen appelé aspirance bi ngeen wax waaw dawe damay sa yoon nga may xool dawe la da nga dem dawe la da nga dem bu la ma sonal la ko ju bari jàng naa waaye yow เฮ้ยไม่ต้องกัวใก่จ้ามาใก้ใก้ใก้ใก้ว่าวราเล่าย่องมไกเย่าเย่องไก้ทำไมคนนี้มันลูกใก้ใก้ใก้ใก้ใก้ใก้ใก่ย่องไกาใก้ใก้ไก่วิลเลจเนล่ยเหรอโลเ No potem giro sono brevettare, ma un mariachi, prepararsi un Oh, Vamos lá? Vamos lá, já. Oh, lo de ya, no, no, no, no, no, no, waaw kii lan moo ko war a dal ba muy am ay feebaru xel. Kan? dégg naa ne am na benn sëriñ bi nekk fële ci monument ba bu yeboo fa dem jëm fa ay ñaar. Ah, lii de jaaxal na ma. sëriñu Ndakaaru yi léegi yow wóoru nga sëriñu Ndakaaru sa xam-xamam man ñaar mooy bañ a wóor. la 27 la ñu war a mari. waa bu doon man la de loolu laay dem defi ji. waaw waaye. waaw bisimilah. salaamaaleykum. maaleykum salaam.

njàkkari rek moo ñu yëngati. subhanallah. salaamaaleykum. maaleykum salaam. ça va. fii mu ne gisoo doo leen fi fekk benn paasari bu fii nekk buy toog fii nii. mosoo leen gis benn paasari bu fii toog fii nii. ah man fan laa jëm yow. seen taw bi. mooy suñu taw ah, xam naa ko baax loolu xam naa ko. moom waaw waaw waaw ndeysaan. moom moo nekkoon suñu taw. waaw te daanaka kër ga moom lépp moo ko daan def. dëgg kay macha allah. baax sax. dëgg kay. waaye Serigne Gueye. Mhm. comme ne nii Gawusu jaaxal na mu torop. Ah. jaaxal nañu trop trop trop. ndax moom mel ni ku tàggale koog sagoom. te kenn xamul lan la. te kenn xamul mbir yi gaaw na gaaw nga xamante ne kenn mënu koo expliquer. loolu ci jàppale ñu Diop. ndax jaaxal nañu trop. xam nga mbir mu nekk moom dafa am yoon comme que daa jékki-jékki comme ni ko waxee mel ni lu xaw a tàggale koog sagoom. balaa ñu ciy def dara wala balaa ñu ci wax dara dañ koy seet ba pare lu ci nekk rek ñu mën koo xam fan lañ koy jaar incha allah waa paa bi xaw ma ko xaw ma fu mu dëkk man ñoom fii laa ko fekk ma ko ne fii la dëkk te paa bi di fekkatuma ko fi ah lii de jaaxal na mu waaw man fan laa jëm tey te doomu jàmbur bee ngi nii dof na allahu akbar li ngeen foog de ak li am bokkul kii li ko dal nii ay loxo ci dugg. Ah, ah su ma neexee day mën a du jàmm ndaxte lii ko dal nii ba mu tàqal ko ak sagom liggéey la de loxo ci ne. te wóor na ma paa bi li ma ko wax deful loolu dafa tofloo doomu jàmbur bi te man mbëggee léegi laa ko doon li waxu mbëggee léegi laa ko doon wax pour mu jàppale ma ci te kii mooy teraanga yaayam moo mën a jàpp mooy benn seen biir kër benn góor benn jigéen ah ma ne bàqaar bi xaw ma fan laa jëm ak bàqaar bi ñu tey dañ gëstu tax nga ko xam. bu baax a baax nit ku baax te tamit. ku ko xam-xam ko ci vraiment dimbali dimbali doomu aadama maam bi jub gore. dëgg la topp yoonam te it di liggéeyal yàlla. <laughs> gëstu moom nit nit ñi la woon moom def lu baax rek moo taxoon di jub ci la doon xëy di ci gont. man kay li ma jaaxal mooy kan la war kan. a jàppale ba mu jëf ko jëf ji ñaam. naam li nga wax dëgg la. nit ñi day ana kan lañ gën a mën a soxla mooy ki yori teraangaam gën a maanu nit ku la gën a baax gën laa yiw gën laa gàtt tànk kooku lañ gën a mën a yàq deram te lii ma la wax seen njaay du deñ sëriñ si ñeme nañu yàlla nit ñi xoolatuñu yàlla demal ci beneen sëriñ ku ma sut nga laaj ko lii du deñ nit ko ko def parce que liñ ko def ci am picc mi naaw lañ ko def naatal ko mu génn réew mi te dinaa wax lan nag lu picc mi gën a sori mu gën a sori réew mi kooku man seen njaay maa la ko wax bu picc mi demoon ba Niger da fa dem ba fekk ko fa te li ma la fa deñ man maa la ko loolu tey na bu picc mi faatoo moom moo gën a te yées sëriñ amul ay ay sarax wala yoo xam ne xanaa war na ko mën a fànk. sëñ Diop su ma la ko waxee maa ngi bëgg a lekk sa xaalis lu ma la wax ni boo ko defee ci sarax wala ñaan dana wér sa xaalis lay lekk waaye li nga bugg doo ko am man sëñ Ndiaye de alal àdduna lu ma loolu te yaakaar naa képp ku dund ci kaw suuf war ngaa xalaat sa tëjaay ndejoor fii si biir bàmmeel ba mu bañ a ngay def lu ñaaw. te li ma jaaxal mooy nan laa ko nar a yeggee lii suma yaay. daan leen rek fi sës gëm yàlla doole yàlla ba bis penc. yàlla dafa wax ci alxuraan inna allaha maa saabirina man yàlla de ñii muñ képp lay àndal te ko yàlla àndal parto bàyyi leen lépp ci loxoy suñu bon ba bis penc lépp dana leer ci kattanam. da. mara bi man li moo xam ne jaaxal na parce que dafa mel ni góor lañ ko jóg. yéeme naa waaye li wax gee. dañ ko liggéey te dañ ko liggéey. takk ko ci picc. Oh. lu picc mi gën a naaw sori xel mi gën koo sori. te oh. bu picc ba demoon ba Nigéria yi dina waaliyaan ba foofu fekk. te muy gën di dem di ko oh. wuti. wax gee. te koo fay. non. naa trop na. mais tegal nga ko bi ba. kenn tegal maire bi. looloo ma jaaxal. ndax xam nga maire bi. yaramam neexatul. mën nga ah, ko wax bi gën ko jàpp mu crise fa ah waaw xanaa dalal xelam. Ah, waaye nouvelle boobu moom. mën naa ñàkk. yaakaar naa ne sa kapiligaw ang tao, ang tayo bumuha. wóor na waaw neen dina wóor de laay Serigne Ndiaye lu mu laaj ma def la ko dina wóor de loolu ma sama doom di jënd la yëpp yëpp yëpp dinaa ko jaay jox ko Serigne Ndiaye ndax sama doom di rek ànd ak sa gox ndax li ma am ginnaaw yàlla yeneen te moo ma ko defal moo ma sagal yóbbu ma màkka ubbi ma atelier jënd ma ay or dëkk dem ba Ndiaye Awa Ndiaye mu jógee Dubaay jaaro or yi yëpp moo ma ko jënd wóor na yàlla sama doom di bëggul ma nam ma dara nam ma dara ndax moom sëriñ daal lu mu la laaj. Mm-hmm. nga wax ma ko ma jaay sama xol ah, rek. incha allah jox ma ko hôpital laa sama tension bee yëg ah sama góor gi nga xam ne sagar ma sagar ma bëgg a dee ko dal. man maa mos ko boy, no người gonna give sànq nee na danaa demal waaye jox la ko su la ko joxul doo mun a ñëw wala moo tax. waaw man kooku ma jàppale kii. waaye ñoom ñooy toog bàyyi ma ma dem ma on Roso xam nga ko. waaw jour bi mu fi ñëwee kooku kay bi mu jógee aéroport noonu. waaw kooku la. lu ko def yaram mu naqari rek. waaw ndey lu ko war a dal kooku la. man na 15 jours. ah ndey loolu ba loolu doy na waar. doy na waar de. déedéet xanaa na jàll. kon meer nekkatul nag. meer dof la def sax meer. lekkatul naanatul toogatul sax. diggante bu mu ñëwee rek. di gis nga ko de. waa léegi xam nga lu ñu def. Mm-hmm. xam nga sama yaay waa Casamance. Mm-hmm. léegi rek xam bi ne Casamance naa ko wax mu mm-hmm. ndax dinañ ci mën dara. waaw ndax toogaay amatul nag dañuy seet solution rek. waaw xool fu mu baax waaw waaw noonu la demee. ndax sama yaay waaw man

Soda Gawsu sama jarbaat la. loolu kenn weddiwu ko. Mhm. Soda téléphone yaa ngi dox. la. boo yóbbantee ma jot ci. dëgg la. nekk ci mbedd bi di taxawaalu ma koy far ci wewu bëy. dëgg la. yoon néewuloo dëgg naa Gawsu far nay daal nag. Ah, Soda xanaa da ngaa umpale ne maa ak ñoo bokk ndey ak baay. waaye suñu bokkee ndey ak baay waaye yow boo defoon lu la war su ma doon woo di ma lijjante ka nemmeeku. Mhm. man man ak ndey rek a nekk sa kër. loolu d'accord naa. mais defe na la sama yóbbal. waaw de. Soda. Mhm. Mhm. ñëw na kër ga mat ne ko faatu wala Kati. kenn ci ñoom laa ko bëggal soxna. Fatou nu mu yàlla xam na. Gawsu may wax ak moom mu xamal ma ne ma dafa am ku muy bëgganteel. yëgu gawsu de ma ko. gawsu gàntu sama kanam. dëgg la ma wax ba sonn gawsu amul lu muy rus amul lu muy ban dëgg la. mu wóor ma ne li ma boole ak yow. kóllëre googu laa bëggoon mu sax dàq. moo taxoon ma ko koy wax gawsu du man mi di nday gawsu ba mu ñëwee fajar ga mu ñëwee. Mhm. ma julli ba pare te daal sama néeg ñu war a ndékki ndey indi ndékki léegi yëpp ma ne ko ndey ana gawsu mu ne ma gawsu de dafa génn ma jël sama téléphone di ko waaj a woo. Mhm. gawsu na njamet ma na ko gawsu foo demoo mu ne ma sama kër ni jaay. sama xol tàng na trop dëgg la gawsu bu ñëwee fii. Mhm. ne la gis naa sama nijaay waroon ngaa xam ne am na lu ma koy ruumandaat ci suuf. waxuma dara xalaatuma ko. kamuma topp naan ma tàkku xaw ma tàkku fu mu bokk ci àdduna. tàkku de si Ablaye laa ko déggee benn xaritam pour man ngoro xale yi ñuy ngoro di wayaay wayaay. ay pêche ah jotoo ko lijjanti yow it. lu ma siy lijjanti xaw ma tàkku fu ma koy xamee. soo la déglu ma. yow laay déglu waxal. respect bi ma la fi ma la tegoon. dëgg la foofu da nga faa teggi sa bopp. teggiwu ma ko wàññi sa kàddu gawsu nag dina la waaw wàññi sa kàddu ñàkk nga bopp ba. sama kër nga ma fekk si nag. nga jéggal ma bu wér. li ko def yaa ko war. nga wàññi sa kaddu bu tàng sama waaye da nga xam wax li tax may wax ak noonu yow. yow yaa ko def sama jarbaat la nag def nga loo xamante ne nii. dëgg la tey tegoo ko ci dëgg tegoo ko ci yoon. li ma wax ne tegoo ko si dëgg te sama biir njaboot laa toog. loolu dëgg la waaye xam nga lu ma bëgg gawsu bu nekkee ci mbedd bi lu mënoon a am waroon naa ko xam. dëgg la soo doxoon wàllum nijaay soo doxoon wàllum nijaay di yëg lépp danaa topp su may tànk ca biti. waaw bu la neexee toppatoo ma faale ma ma tey la neex. maa ngi lay def maa ngi lu ngeen ci góobee di ngeen ko gaaw. ma ne lu loxo def loxo mën na ko def. dama ne lu loxo def loxo mën na ko def. tey la neex nga mën la xam ne àdduna du niñ ko doon. ma ne dimbali ma sa njaboot gi kenn baaxu si. rek nga ànd sa njaboot bambara boobu sa doom yi nga xam ne kenn baaxu si. ba yow sonal nga ma. acca moom dafa war a gaaw yow sonal nga de. ba yow ndey ki daf maa bëgg a rey des fi waay yow. ma ne ma sonal dem ji xeer bu bari bi dem ndax teen bu neex rek ñoom ñoo ci naan naaj bi lakkatuuma taw bi barewul dem ngir bokk bool mënu fe am dem ngir dafa war a nekk góor doon góor dem fan dem ndax lan liberté espace bu lëndëm bi sama beti yi ci suuf di wut garab yi nga xamante ni ñoo ma suuxat bu ma setee garab yi bëw dem ngir kër gi daf may dem ngir dafa damay dem.

Fatou kat yi parce que ñoo ca biir. Mhm. yaay naan yaay dama leen ci robinet ba. Fatou kat bu leen ko dégg bu leen déggul rek bu leen ko tontu. kaay wuy seen pap. nekk ñu mën a dem. gaaw quoi mu jox ñu jox ñu dem nga man sekk sax lu muy yem man tam ma jël ko mais man. non c'est que xiifuñu sax c'est que sa xel bu ci nekkee rek nga war a jël tuuti rek xaw ci ñam. c'est que loolu sax man dama ko gëj a lekk depuis ma nekkee Sénégal jógee fii am nga gëjoon ko lekk man nee naa fay en ndox duñ ko lekk foofu. ay lakk jën yi xëy fii la am day nekk ci fuur. yooyu quoi. c'est bon bu xelale bu baaxee. ah d' accord. ah ban la bëgg. nee na moom bii lay xool nee na lu muy jar nii. ah boobu jox ma si biir bi. waaw yow nag yow xam nga ko bu baax balaa nga ba si biir. ah loolu ci ma. 200. ay garab ñun amuñu luy jar 200 nag. waaw waaw li ñu jàppale man damay mën naa ne bon africain laa dëgg la africain laa mais mën naa ne tamit dama yaxoo si tubaab yi. na def 35 ans en Europe kon du benn at ñaari at. coupé yàgg sa bopp dama dama direct dama jub donc sama waxu démb du ma si dindi dara sama waxu démb aussi tamit du ma si yokk dara euh, naa waxoon naa la man ay say doom bàjjan say doom di jaay yooyu intéressé ma loolu laa la waxoon. coupé mais ba tax na solo avec en fait xaw ko rafetal nag quand même punya baik baik baik cuma asal dengan nyau defe nañ ah adduna ki nga xam ne fadaani ka ah li nga xam ne man moom. laa gën a gaaw laa gën a gaaw demal ne demal ne. nii lay gisee. du ko arrêté ku jëli dugal tuuti moo gis la. on le fait trois.